parrainage bi par la force dañ koy jàllale parce que nit koo xam ne amoo cinq pour cent sunu gouvernement def ci yow trois cent quatre-vingts millions ci élection législative fanweeri candidat ak ñett wala ñeent plus fort reste fii ñi fi am question nationale bi ñu tuuti lañu doonoo mayati ñooñu ñuy présenté wu lu leen neex parrainage bi il faut ñu appliquer ko li ñu mën négociation mooy nombre Diomaye léegi dañ ni Macky Sall même mi président bu bëggee représenté wu day am parrainage valable na pour parti politique yëpp ak indépendant yëpp loolu fu mu andee coow ku yaakaar ne am nga mbooloo kay wax dëgg yàlla xam ne bu candidat yi wàññi ko mën a wax juróomi minute bés bu ne ci rajo yeeg yi ndax deux minutes lañ doon wax ndax 47 te buñ bàyyee système bi daañu dem moyen ak poids bon kon loolu rek mooy carrière loolu mooy coono.